mbokki internet Kabir TV dal leen jàmm ñu dikk ak yéen ci li gën a ci xibaar yi ni ki démb ci àllarba bi fukki fan ak ñaax ci weerum juillet 2023 ca conseil des ministres la njiitu réew mi tabbe kii fi di ki fi nekkoon na chef d'état-major général des armées CEMGA Cheikh Wade ambassadeur du Sénégal ca Grande-Bretagne ba tey bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu conseil des ministre ba général Wade daal di uutu Fatima Dia Diagne moom général Cheikh Cheikh Wade eh, ki ko uutu léegi si ndomba tànk chef d'état major général des armées eh, di Mbaye Cissé ca conseil des ministres ba la ñuy des ba tey ak njiitu réew mi Macky Sall daal di si xamle waale ne dina dem ca réunion de coordination de l'union africaine bi war a am fukki fan ak juróom benn ci weerum juillet bi 2023 ca Nairobi eh, bu fa jugee utali Kigali ca Rwanda fukki fan ak juróom ñaar ci weerum juillet ca conférence sur les femmes ba ñu fay amal conférence conférence Women Deliver 2023 boobee di am ca Kigali ca Rwanda fukki fan ak juróom-ñaar ba ñaar fukki fan ci weerum juillet 2023 bi bokk ci réunion multisectorielle yi gën a mag ngir yokk jéegu yu ñuy def ci ci égalité góor ak jigéen réunion boobee dina dajale lu toll ci 6000 doomi aadama ak 200000 doomi aadama yoo xam ne dañu koy teewe en ligne ca ndax jëm ca waa Xindar juróom benn doomi aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan gannaaw ba seen gaal këppoo ñuy wax te noppeeguñu ci 300 migrants yi réer ci géej gi bi la yoon juróom benn doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan ca waaxi ndar gannaaw ba seen gaal këppoo mi ngi xew àllarba ci fajar gi bu ñu sukkandikoo ba tey ci benn source bi dadoon dem Espagne li di bilan bi mën naa ëpp loolu waaye kenn ci commandant compagnie de sapeurs pompiers ba nekk ca ndar ne am na juróom benn ñu ci ñàkk seen bakkan ñeenti nit daal lañ leen di sowe lii di wër gi ba tey ñu ngi koy wéyal ca waaxi Ndar ba tey tamit ci commandant de compagnie de sapeur pompier ba nekk ca Ndar ne dara mënul leen firndeel ne gaal googe da doon dem Espagne xeexal li di mbënn mi njiitu mi Macky Sall bëgg ñu amal ay réunion interministérielle ay bés yu ne mi ngi ko xamle ca conseil des ministres àllarba bi fukki fan ak ñaax ci weerum juillet 2023 njiitu réew mi ñëwaat ci wëyal programme national yu ñuy amal ngir xeex li di mbënn mi waral muy sàkku ci jëwriñ bi njëkk ci gouvernement bi muy amal ay réunion interministérielle ay bés yu ne ñu jël matuwaay yi wax yépp lëkkaloo ci ak mairie gox yi biti réew dooree ko ca France ak gouvernement bu France xëy ne day jébbal ab plainte Juan Branco bokk ci ay avocat Ousmane Sonko di ab française plainte boobee la waral ñu ni Juan daa mis en danger la vie des fonctionnaires français yi nekk fii ci réew ma Sénégal bu ñu sukkandikoo ci information Europe 1 le ministère de l'Europe et des affaires étrangères di sàkk ñu fàttali avocat bi ordre yi waral ministre bi ne day bind ab plainte daal di appliquer article quarante article selon lequel tout autorité wala fonctionnaire et contrainte de signaler un crime ou un délit dont il la connaissance bi ci réew la ñuy des ba tey bi la yoon ca Nigéria ak kii fa nekkoon na footballkat bu mag di Jay ak Akocha ñu tab ko jëriñ bi yore wàllum tàggat yaram nekkoon international footballkat bu mag ca Nigéria doonoon tamit capitaine bu Super Aigle Augustine Akocha ñu gën koo xam ci Dieye Akocha moom la ñu tabbu talaata ji fukki fan ak benn ci weerum juillet deux mille vingt trois bi yore wàllum tàggat yaram ca Nigéria yore tamit wàllum ndaw ñi ak le développement ca réew ma bu ñu sukkandikoo ci information yi site yu bëri fësal la limo fi ruuse woon ci ay xibaar woy leen di ànd ak programme Kabira TV.